dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen ñu xëy yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa maître Moussa Diop mi nga xam ne moo jiite dakaar dem dikk moom nag daan nay wax ay dëggam daan nay dellu si ci dàq gi nga xamante ni nag Macky 2012 daan na koy dàq Aji Mbergane Kanouté ak Moustapha Diagne moom maître Moussa Diop ci yéen a kaay groupe promo consulting gi la mu xamle nee na coalition Macky 2012 ñoom ñoo dajee ci seen biir maanaam leader yi kenn ku nekk joxe sa xalaat ci taxawaay bi nga xam ne Aji Mbergane Kanouté am na ko ak Moustapha Diagne maanaam bi ñu demee vote nag ci lu jëm ci wàllum dàq ka ñu ëpp nag ci leader yi dañoo wax ne dañu leen a war a dàq ci noonu nag si lañ leen dàq ci anam boo xam ne maanaam bu jaar yoon la moom maître Moussa Diop di wax ne Adji Mbergane Kanouté jamono ji nag moom mooy def ay manipulation di wax ne dañu ma dàq ci coalition Macky 2012 waaye nag ba léegi nii may waxee ak yéen man maay coordonnateur Macky 2012 Adji Mbergane Kanouté moom nag maanaam du nit koo xam ne ku crédible la kàddu maître Moussa Diop la daa di wax sax ne moom Adji Mbergane Kanouté dóorkatu marto la Macky Sall ci boppam lay jéem a dóor marto te nag Mahmoud Saleh ci boppam maanaam moo nekk ci ginnaawam man nag damay liggéey ngir Sénégal moom maître Moussa Diop ci yéen a kaay groupe Promo Consulting gi di réew mi quotidien di wax ne maanaam ñi nga xam na ñooy syndicat yi nekk ci Dakar Dem Dikk Mahmoud Saleh tamit moo nekk ci seen ginnaaw di leen di manipuler jamono ji nag dafa taxaw temm ngir andil ma ay jafe-jafe waaye nag am na loo xamante ni man du ma nangu benn yoona moom maître Moussa Diop di xamle ne ci biir yéen a kaay gi di wax ne nag ñoom bind nañu nag Macky Sall ngir nag mu daal recevoir ñoom coalition Macky 2012 waaye nag ba léegi nii daal France daal di xëddeen daal wax ne Macky Sall nag bu dem ngi recevoir ñeneen ñi bañ a recevoir Macky 2012 loole nag maanaam problème la Fadel Barro ñu fekk ko ci yéen kaay gi moom nag mu mel ni kuy xelal njiitu réew mi di président Macky Sall di ko wax ne jamono ji nag war naa yeewu balay bëy di way mbuus ndax Macky Sall jamono ji ay ndaw la amel affaire te nag ndaw ñi du ñu deltu ginnaaw benn yoon Fadel Barro sax dem ba jaaxle mel ni sax di wax ne Macky Sall est-ce que ma ngi dégg wala xew daal na kay xam coalition ñoo lànk ñoo dañoo bañ ñoom nag jamono ji dañoo taxaw temm ngir nag ñu li nga xam ne mooy courant bi bàyyi Guy xam ne ma ngi ci kaso bi yéenekaay mooy directeur publication bi daal di xëy nag ci rapport yi nga xamante ni Cour des comptes génn nañ ko maanaam rapport 2015 bu 2016 ak bu 2017 waaye nag jamono ji daal xel dafa daal di teey lan moo tax waa Cour des comptes toog ba heure bii di doog di génn rapport yi Assane Samb ne ñu bari ci askan wi nag dañoo jàpp ne magistrat yi dañu leen a teg pression ndax dañoo bàyyi ba élection yépp jàll ñuy dog di génne rapport yi ndax nag ñoom xam nañu ne bu ñu génne woon rapport yi avant élection yi opposition bi dañu koy jël daal di koy exploité te bu boobaa nag askan bi maanaam dañuy xam ne ñii nga xamante ni ñoom la ñu dénk réew mi ñenn si ñoom maanaam ay tojaange ak luq njur rek la fi daal di moo tax nag ñu daal di bàyyi ba élection yépp jàll ñu doo ko indi ay rapport ba tey ci biir journal bi moom Assane Samb di xam le ne te rapport bi xam ne ñi nga ñoom lañ dénk alalu askan wi yéen kaay gi di exclusive moom rapport cour des comptes yi ak ñi nga xamante ni maanaam daat na leen di joxar bi baaraama tuuma ci ay njublang ak détournement ci ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénkoon maanaam jamonoy Abdoulaye Wade ku dàq détourné sa morom nga ne kii la journal bi dem sax ba koy tudee classico ñi ànd ak Macky ak ñi ànd ak Abdoulaye Wade ci lu jëm ci mbirum détournement journal bi wax ne mbirum sàcc mbirum faux diplôme mbirum maguy mbirum luqunjuura usage de faux association de malfaiteurs loolee lépp journal bi dikk na ci ci rapport bi ak cour des comptes gi nga xam ne jamono ci ñooy sàkku nag ñu daat leen di topp yéen kaay gii di Les Échos mu ñu xamal lan ñu gaañi saaxo mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon OFOR maanaam office des forages ruraux moom tamit daan nañ koy joxar bi baaraamu tuuma ci ay tojaange yu doy waar a doy waar yoo xam ne moom lancé na gaañi saaxo daan na def ca OFOR jamono ji nag moom lañ dénk ONAS yéen kaay gii di Sud Quotidien mu xëy yi rapport yi en tout cas li mu wane mbir ni mu doy a doy consignation dugal nañ si lu toll ci trente milliards yoo xamante ni jamono ji maanaam fifteen nekku fa si juróomi at Cheikh Kanté nag moom jamono ji rapport bi daal na koy joxat bi baaraamu tuuma ci ay tojaange yoo xam ne daal na koy def Cheikh Omar Anne mi nga xamante ni nag moom dañoo waxoon ne dafa def ay tojaange ak njubla nga ak luqu njuur ci fi nga xam ne mooy kuddu rapport OFNAC bi daal na koy dëggalaat ne li ñu waxoon ci Cheikh Omar Anne dëgg gu wër péng la laas yéene ñu fekk fa Mohamed Boun Abdallah Dionne la mu xamle ne na Macky Sall champion la ci bonne gouvernance maanaam yore doxalin wu sell yéen a kaay gii di Dakar Times ki fi nekkoon premier ministre bu Sénégal di Mohamed Dionne daal di wax ne Sénégal nag dafa neex am na ñoo xamante ni dañu fee nekk di yiw yiwlu di baax baaxlu jàpp na ñoo fi gën a te nag ñoo fi gën a luq njuura yéen a kaay gii di Libération mu ñu xamal lan ñu li nga xamante nag moo am mooy of nag ñoom dañoo seetal Aliou Sall maanaam dañoo ragg Aliou Sall ba mu seet wecc ci lu jëm ci tojaanga yi nga xam ne doon nañ ko ko tuddal jëm ci pétrole ba pare ñoom waa of ki nga xam ne maanaam moom mooy Karim Wade Pape Alé xamante ni bu doy war la daal di ciy fësal nag loo xam ne moom njort na ne ay tojaangale yu Cheikh Omar Anne def ci kuddu Cheikh Omar Anne nee na nag dina ko daal di porter plainte yéen kaay gi mu ñu xamal ñu ginnaaw drogue bi ak yamba ji nga xamante ni bis bu ñu xëyee jàpp ko ci réewum Sénégal laas nee na lu toll ci quatre-vingts ceeb bu baaxul boo xamante ni maanaam daat nañ koy dugal Touba ceeb boobee nag daan nañ siy teg loxo waaye nag la sa doy waar ceeb la boo xamante ni xeet gu bon a bon la ceeb ba di xeeña maanaam mala yi sax bu ñu ko lekkee na ñoo am ay jafe-jafe waxuma de la police nationale ñoo ko daal di xamle ñi nga xamante nag ñoo def giraawaali géew ge ak njublan googe jamono ji ñoo ngi leen di wër yéen kaay gi di sunu lamb xëy nag di ñu xamal nan ñu Papa Sow mi ñu dàqe woon ci écurie Fass daal nay taxawal ab écurie moom nag la mu xamle jamono ji daal dafa bëgg nag former ay champion ci làmb ji